voilà daa voilà donc euh, vraiment di fair un appel solennel au président euh, euh, Diomaye Diakhar Faye suñu jaam di ko féliciter au passage di ko féliciter au passage en tout cas pour dëgg sobriété ak yooyu yëpp macha allah mais ñun en tout cas na xam waa Podor dañoo xiif waa Podor dañoo mar Fuuta xiif te loolu c'est des gisoon déggoon nañ si Fouta Tampi de ñu dem ba ci yàgg mu ne Fouta Tampaan Podor woyi tey moo nekk suñu onzième année ah. ñun daaw on a existé avant et on est après ñun on est constant dans dans le combat kon nag Podor Tampi xam nga mm. donc Podor jooy na parce que tey Podor tool yi amul aménagement yu baax nee na dañoo xiif Podor amul ay unité de transformation agricole yi dégg ngeen soble bi soble dafa dem ba bii yoon dafa fees ba ñu koy jaay ay kilo cent franc mm-hmm. xam nga mm. parce que lu tam y' a pas d'unité xam nga tey dafa war a am ay ngandi unité loolu dama ci woo président de la république à véritablement ñu créer des unités de transformation alimentaire mais aussi de conservation des produits mais <coughs> également di woo véritablement le ministre de l' agriculture mu def une mission véritablement diligente une mission urgente de visu mu gis aménagement yi ngeen gis ni aménagement yu amul solo te aménagement yu baaxul mais tamit une population une famille par exemple de dix huit personnes soo ko joxee cinquante ans lan la koy njëriñ. merci et le premier ministre loo koy wax. non le premier ministre en tout cas maa ngi xaar véritablement sa déclaration de politique générale te mu. xaaral waa waa assemblée ñu defar euh, règlement intérieur. non non xam nga on fait pas du faux dans du faux. la constitution est au-dessus de l'assemblée nationale. gis assemblée nationale c'est le président de la république qui a les prérogatives. mooy doxal les institutions. mais il n'est pas reconnu à l'assemblée nu mu fay demee donte euh, euh, constitution bi may na ko ko su fekkee assemblée reconnaître ko nu mu fay demee. waaw loolu déjà man déjà gis naa ay député ñu ngi régler loolu. loolu moo war a njëkk euh, donc euh, loolu noonu en tout cas man je pense que gis nga constitution suñ ko laajee rek. dëkk du dem. merci donc vraiment di faire un appel en tout cas à tout les à tous les maires des 22 commune nañ dellu seen yi ñu xool les problèmes mën a véritablement euh, ñëwaat. régler dem wuti ay partenariat indi ko seen dëkk problème chômage boo xam ni ak problème yu yu doy yu yoo xam ni. exode rural jërëjëf.